man ku ma gis xam na ni photo ablay Daouda Diallo la infrastructure yi ñu def foute yépp biñ koy def pose première pierre lancement travaux yeneen ak yeneen mag ablay Daouda Diallo la mais biñ fa delloo di xoole dangaa jàpp sama loxo ànd ak man mbindaan sax boo ko remplacé nga naan moo oosal karo yi moo yàq ndab yi moo toj kaas yi waaye yow dangaa gore nga doon ku baax monsieur le ministre danga mën a déglu nit ndax man recevoir nga ma te xamoo ma nga déglu ma ma wax la lu xew nga jëfe ko kon nag dañ lay sant gërëm la du sama jikko taxaw fii di gërëm ay ministre mais nag nit ki yàlla sax loolu la bëgg monsieur le ministre nag ñun dañu am doléance bu ngande ndax ñëpp gis nañ ma ci biir ndox mi def naa assemblée bi yëpp gis nañ ma ma dugg ci biir ndox mi ba fii diggante jaataar ak mbooyo dafa dag complètement diggante alwar ak mbooyo dafa dag complètement bu nawet bi amé ken mënul jàll on est complètement coupé du reste du monde do dem do dik bu jeyé amé ken mënul dem ambulance mënul dem lolu dafa xaw metti té le président Macky Sall bi ñuy def ak mom tournée en 2009 dañu dem réer ci àll bi tuddi ci àll bi fanaan fa ba set bi mu waxee man la route Saldé premier conseil des ministres décentralisé à Saint-Louis la route Diatar Saldé président Makisal la la route mais jusqu'à présent la route Kaskas Salde, la route Njum Alwar salde, mais la route Diatar Alwar ko euh, monsieur le ministre ba a, c'est que le ministre des finances m'y parce que vraiment vraiment population souffre. souffrir nous devons sonne, wax nañ choses, mais nous fex sax une réponse bu Nous dañ leen ñaan bu que la route à il faut nous route bi

ñun waa Mboyo waa Diatar wa Donnaay wa Alwar waa Jama Alwali waa euh, comment dirais-je Jaw ci la ñu bokk.